Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum comme ni ñu leen koy waxee rek yaakaar naa ne am na yoo xam ne kenn dootu ko laam-laameeti jëmu ji ngeen gis nag mooy Fara bu ñu Fara Diaw nag ki nga xamante ni yàgg naa lëmbe biir Ndakaaru yàgg naa lëmbe biir senegal waaye tey mu nekk diggante Pikine ak Guédiawaye mu nekk jëmu joo xamante ni kenn dootu ko le fii nii ci biir béréb bi Fara Diaw ñu ngi maa ngi leen di fay ça va naka ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp ñu fi teew di wax ne liggéey bi ñuy liggéey liggéey luñ ko suñu bopp waaye xale yi ngeen gis jeunes yi ngeen fi gis jigéen ñi ngeen fi gis ñun ñëpp ñoo bokk Djidah Thiaroye Kaw ñoom la ñu koy liggéeyal te bu yàlla àndee dinañu ci àgg incha allah. ñu gis ni jamono yi ñu génn dangaa jëloon ay élèves yu bari am lu ngeen def ci ñoom nga inscrire leen yëg na xaalis bu bari def ko ci xale yi xale yi taxaw di la ñaan gu rëy ñoom ñu taxawaatee tey dañuy taxaw ngir sargal la te yow sa digganteeg seen i xale yi en fait dafa am lu ñuy développé lu ñu naan intelligence économique intelligence territoriale jàngum xale yi da cee moo tax ñuy xar suñu tànk tey ngir xale yi am occupation mën a jàng mën a am ay diplôme ngir mën a am ay liggéey donc loolu moo waral ñuy sonn ci xale yi di sonn ci jeunes du élèves yi ah. sportif yi aussi noonu la ñuy góorgóorloo ci ñoom di leen jàppale parce que Djidah Thiaroye dafa war am ay champion ci yàlla àndee incha allah. waaw tey jii ah, comme ni nga ko waxee ni ay champion tey ñu gis footballeur yi mbar yi basketteurs yi ñëpp seen bët leen dem jël teg ko Fana Diaw ñoom ñu ne am na loo xamante ne passé na mais dañ ko réccu te ñu dem mat ba ci biir reculé woo saa heure bu ñu leen soxla ak bu ñu soxlawul yëpp nga taxaw leen sa digganteeg jeunes yi lan nga def ba collaborer ba jeunes yi taxaw ne carrément mbir mi yow la. mais mooy li ma la wax rek loolu da ngay tendre micro bi quelque mbër wala quelque sportif yu nekk ci biir assemblée bi nga laaj leen lan moo tax kóllëre la ak vision te dafa am lu ñu bëgg ci ñoom bu ci yàlla àndee danañu ca àgg incha allah moo tax ñuy sonn ci ñoom bëgg ñoom ñu tekki nekk ay champion tey jii ah, ñu ngi jëmaat ci yeneen élection tey ji yow fi nga xamante ni diggante Pikine ak Guédiawaye mbër yëpp taxaw ne inde a ñu ne la Fara Diaw Fara Diaw Fara Diaw sa diggante ak mbër yi am nga loo xamante ne lebal nga leen ko ba ñoom fu ñu dañ koy waxtaanee ëllëgu Fara Diaw lan la soxla loo xamante ni ndawu Pikine ak ndawu Guédiawaye dañ ko ko dañ ko ko war a jox bon c'est que lenn aussi il faut ma clarifier ko mbër yi dañ naan Fara Ndaw Fara Ndaw du leen di jox am na ci ñoo joxuma leen ko mais seen mag donc moo tax ñu ànd ak man te loolu kóllëre la digganteem démb la woon tey soog a ñëw waaw ñoom sura maa ngi leen di nuyu lii nu mu ngi fee donc gis nga am na presque six mbër yu fi nekk ñoo xam ne ay futur champion la ñuy doon incha allah maa ngi koy ñaan yàlla di leen ko ñaanal ñoom. tey tey jii ñu gis ne Youssou Ndour am na làmb ju rëy gàkku tamit am na làmb ju rëy waaye gisuñu kenn ku dul Fara Diaw sa digganteeg ñoom jour làmb ja naka nga leen war a taxawoo si kàttanu yàlla. ci li ma gëm damay toog di leen ñaanal am ci fu ma jàpp di leen ñaanal donc yéen aussi yéen a ngi ñaan ci li ngeen gëm ku ci nekk rek day ñaan ci li mu gëm parce que ñaan rek lañu am parce que lépp yàlla la mooy joxe ndam mooy joxe defet mais suñu xale suy bëre dañuy ñaan yàlla mu may ko ndam waaw jërëjëf. kon léegi xam naa léegi dañ lay bàyyi rek comme que population bi dañoo taxaw ngir nga am kàddu yoo xam ko war a yëkkati tey jii ci ñoom yaakaar naa ne liggéey bi jeexagul. première partie la mais deuxième partie la après dañuy dugg ci quelques mbër dugg tamit ci quelques membres yi nga xam ñoom ñoo fi nekk ak maire yeeg jeunes yi ñu am lu ndaw loo xamante gis nañ ko ci tabe ñu bëgg nag ñoom lu leeral ko askan bi kon yaakaar naa ne dañuy wàcc suuf dem jëli ji loolu bàyyi la ak jeunesse bi nga taxaw am loo déclaré ak ñoom maa ngi leen di bëggee bu baax yéen tam di leen remercier ci seen teewaay parce que mbir mi ñoo ko bokk jaajëf a ko gis ki mooy Fara lu ñu lam-lam xëy na ka tër na jonn kenn du ko sikki sàkkal olof la nag ci biir olof waaye nag làkk la tam ci biir làkk donte am na xeet gu mbokk waaye ak suñu xeet tam yaakaar naan lépp benn la yaakaar naan lu rafet rek la bëgg te yaakaar naan lu rafet rek la bëgg ci biir gox bi kon ngàcce ngàllaama dañ koy bàyyee ak ñoom Bienvenue sur Salam Vision. Thank you.